Ablaye bi waxoon naa bu jëkk ni leen dañ koy daaneel mu dem Versailles bu ñëwee rek andi fitna fitna rek lay andi bu duggee réew mi pour doomi jàmbur yi na leen fitnaal la fukki at ak ñaar jox nañ ko réew mi daa doy magum 94 ans kenn du ko jox sam réew doomi tubaab joo xam ne defaluñu dara kenn du ko jox sam réew loolu il faut mu leer candidat yi fi nekk nag ñeent ñi nañ leen analyser ndax wax nga ni dañuy politique man politique moom laa def suma métier je suis agrégé en politique Macky Sall la ancien premier ministre la jaar na fépp Idrissa Seck la ancien premier ministre la am na fu mu jaar ñi ci des fu ñu jaar xam nga kon ñoom bokkuñu ñaari candidat moo am Idrissa Seck Macky Sall